genn yee yaa nga ne yee yaay yow nag yaa am fit yaa ñëw jàkkaarloog man li ma ko wax. yow fii ban dugg ak génn nga fi gis. affaire du question de fit te dama bëgg nga xam ne ñun amuñu jot boo xamante ni dañuy nekk fi nekk ci sa der. am ngeen ko ndax am ngeen ko am ngeen ko ndax def ngeen ko. yéen lan la Eva déglu ma Eva man amuma jot boobu yow loolu saxam nga ko. yow yeddoo ma danga may xas. ndax boo nee góor ñi dañuy dugg ak a génn naan ma dangay taxawaal loolu ku ko dégg kay sama der bi lan laay ci dëkk bi Zahra. loolu moo tax ma woo la tey wax ak yow. amoo loo ma wax nag. si amoo loo ma wax. ndax ku nekk nga ci sa ruq di am looy def te kenn waxu ko. ewa man benn far nga ma xamee. ci ma benn far nga ko xamee. wóoru ma de. ah wóoru la loolu laa gis loolu ngeen ma war waaye xaw ma bu ngeen génnee wala bu ngeen liggéeyee ba wàcc ma damaa xam fu ngeen di jaar. man Eva waxuma loolu de bëgg a xam looy taxawaalu. dama ne taxawaalu ma bu ngeen xëyee liggéey du ma toog di xoolanteeg mur yi damay génn doxi samay soxla comme ñépp Fatou. naam. foo nekk nii. man mii si ah, dama lay yéex yow moom dangaa teel a pare ba defar sa kanam yi. gis nga de toog bi la xaar. ma ki yow nga de. moo ne damaa fomp rek de ma yeewu na. ak sa lipo bi. ah gis nga xam nga mbooyo bi day wowal tuñ su ma xëyee rek dama ciy laal tuuti mën a yendoog moom ci kër gi. yow boo moytuwul dinaa confisquer sa portable. confisquer kon nga ray ma ni moom laa am. parce que dama seetlu ne sa togg bi dafa manqué benn cafka. te sama togg nag bàyyi ma ak moom ndax mbonaata xam la ca dégg ba moom mooy ruux ko ca ban sama épice bi xanaa danga kaa fàtte wala dafa jeex yow sa épice bi nu ma koy fàttee mayoo ci kenn jàmm yow sa su ma xëyee moom laa njëkk a génnee teg di ko xool mais bi dafa des xaw lu tax eh desul nag yow danga naqaree toggal yow luy lijjanti lu may avancé yow lan moo la manqué moom laa bëgg a xam man de xàmmeetuma la man moom xàmmeetuma te xam nga sax wax ji lan la nag man maa bëggatul léegi rek ma doon conseil léegi nag na fi wax ji yam Zara. dafa doy Eva yow yaay kan ba du la wax dëgg. waroo wax waxoo dëgg nag danga may xas. non non dama wax parce que da nga nga dégg ko. ci sa bopp yow koo faale ka nga toogal di réunion ba muy jël yeneen di ko dugal sa bopp loolu laa wax waaw kay. bu dee loolu mooy tax nga dégg dama lay xas. fii ku nekk ngi ci sa ruq di def te kenn waxu ko. yoo xam nga jéenaa bu yéeg ne li ngay def ko neex. dëggam yëgu ko. defuma fi dara nag defuma fi dara li ma war a def doomu laa def lan ngeen bëgg. te nag damay am gan. gan bu foor laay am. waaye li ngeen teg. tey nag foo muy génne. jëm tey tey nag ak yàggan gi dama leen di yóbbu ba bawal rek ma bàyyi leen fa. bawal bawal kay ah waaye luñ mën xanaa pay laa bawal. pay laa bawal dafa am. paay bi moom ci espagnol yi laa ko xamee. yee kon réer nga yow nee naa la espagnol lépp lu mu mën ak bépp réew rek ñi ci ginnaaw mën nañ lu ko raw paay laa rek dara du ci manqué lépp luy fruit de mer luy doxantu mbaa nga dëkk ci biir ndox mi rek day dugg ci biir cin bi. kon ne loolu lu bees lay nekk ci Sénégal waa génne ma bees yaa ko doog a xam loolu dina ma neex de bàyyi ba bàyyi ba ma taaj ko xam nga de bu ma ko taajee du yoon bugguma bu ma teg gàcce non non tamit gàcce pour la xam nga temps yi danga nekk ci say façon baal yooyu nag nga nekk ci say façon de dangaa mën a seetlu mën a loqati ay mbóot ak ay roqal mais foog ma seetlu la foog ma seetlu la parce que ma laa fay sama xaalis noonu ah li may fay nag maa ngi koy liggéey dëgg du neex li nga may fay maa ngi koy liggéey fexeel ba tey sama gan bi bu ñëwee bu ma rusloo. yow nee naa la sa gan bi bu ñëwee tey jii day dëpp carte daal di signé waaye maa ngi waaye kon baax na. ba ngoon lépp dina leer ba ngoon incha allah yaa ngi dem. ñu yéen ak jàmm incha allah. ok bisous bonne journée. merci. ah yow yow gis na kër gi nu mu toll yow nga ne amoo looy def. aw ma lu ma fiy def. kër gi nu mu toll yow doo jàppale fa ci toogu bi wala ci fóot bi affaire yooyu ba nga am foo jàpp. Ah, yow bàyyi sa liggéey nga ñëw toog di jàppale fa man du ma ko def. ah loolu mooy sa wax. ndax am naa yeneen yu ma ëppal solo yoo xamante ne dama ko def maa ngi ci li may avancé loo comme ñëpp comme yow. lan la lan man maay kan lu xew lan moo leen dal. Eva la de Eva de dama koy yedd rek wax de. Eva de dama koy yedd rek di génn c'est quoi ça. lan la yeddoo ma danga may xas te du ma ko nangu. Eva xoolal mais jigéen day wax ndànk Eva déglu jigéen day wax ndànk. lan mooy sa problème mais dangay def ndànk. xam nga yow sa problème say dugg ak say génn yépp yëg naa ko mais amooguma sa jot sama répétition rek dañ maa sonal amooguma sa jot de mais bu ma amee sa jot dinaa la régler xaw ma lan mooy sa problème lan la. li lay wax yépp du dëgg. mais lu am la parce que yaa ko def. yaa ko def te yow seetlu naa la da nga ñeme wax da sañ tu te contrôles pas mais doo def ndànk su ma ñëwaatee dinañ ko régler amooguma sa jot yow moom kooku yow mënoo ko gérer maa ko mën a gérer. waxoon naa la lii yëpp lii di laa la doon bañ lii laa la doon bañ mënoo leen ma mënaloo leen ma dara waa baax na ñaa ngi leen liggéey moo la war de demal soof bee man de xam naa ni kër gi moom hmm, nekk fi metti na de waaye duma leen may dara ma leen leer

ah lu bëri lépp. non yoo xam ne yoo xam ne da ngaa ko mën a daaneel. waaw maa ngi sa koñ. waaw dama ne woon damay liggéey ma ne xaaral ma jaar fi vite fait rek. oh waaye xam nga nag heure bi wax dëgg yàlla danga ma xaw a bett bi dañuy di nekk ci liggéeyu kër gi yoo ma. non non waaw du ma yàgg sax dama ne woon xaaral mu def flash rek xam nga yow su ma gisee matinal bi moom damay am lu bëri. Hmm, waaw loolu de moom xam nga ah xanaa loolu de moom xaw ma lu ma ciy wax. ah, ah kon baax na waa kon maa lay xaar. ok. <laughs> foo xiifee. yow lii mooy lan. kër gi boo amoon caméra cachée looy wax. sama yoon si ay caméra cachée. waaw waaye toogu ma. kama. sa affaire yi mooy lan. yow lan la. yow ni nga ko bëgg du dem ak man. lan mooy sa problème. ban problème yow yaay sama problème. man nii yow yaay sama problème yow ni nga bëgg a jàppee suñu relation. ah kon dafa am lu ma matalu suñu diggante daal. yow koy loolu yow jarul sax ma la koy wax. ma ne wàcc daanoo ci gën a gaaw wax ma foo ma jëmee. mais relation bi amul fóon amul raay yow bu ma la tegee loxo sax nga ne mais lii mooy lan quoi man xaw ma yii de. kon man maa comprendre woon. yow daal suñu projet ma ak yow. phone ak raay daal nga ci jiital. non mais problème bi du ay projet. Ah, ay phone ak raay laa ci jiital mais am na yenn yoo xam ne man góor laa dama koy soxla wala da nga bëgg ma wuti ko feneen. phone eh, mooy indi raay raayee indi leneen yow da koo ëmbal xanaa nag nga bëgg. ban ëmbal yow yow looy wax nii yow. yow yow yow yow sa relation man xaw ma yii quoi affaire yi man xaw ma ko quoi. ñun ñaar dañuy génn wala génn. man de loolu laa la bëggoon na. man man dama. man kay damaa xamatul sax yow yow yow da nga bëgg ma wuti ko si keneen wala déet. yow yaa xool rek bi la ci gën a laal. da nga may eh, ma man damay liggéey. wuy ma dama lay wax yow nga lii rek nga bëgg ma rek. lii yow yow yow lii da ko xeeb yow. yow lii la la. suñu diggante da da nar a seetaan mu yàqu ni su yàqu yow yàqu yàqu du si man quoi. waaw waxuma loolu man moom fóon duma la ko mën a def mais mën naa mooy loolu mooy non yow non yow man mënu ma la comprendre quoi vraiment ay Eva yow ñu lay jiñ dama ngay soccoo yeeru li na faw de